ndax da ngeen ñoo fekk si ci loo xam ne mënuñu koo ñàkk ndax daaneel maam jaara fa nekk dafa sori te ña fa nekk ay nit lañ donc dañuy soxla li doomu aadama di soxla moo tax li ñuy indil ci saabu kenn xamul nu mu toll li ñuy ci omo ak omo sawel kenn xamul waaye am na luñ bëgg liñ bëgg mooy képp koo xam ne da ngaa gis ne da ngaa bëggoon a dimbali maam jaara bu ñu sañoon da ñuy làmb da làmb daara laaj kilifa bi muy sëñ Abou Madiane Diakhaté fi na ne nii yan mooy seen priorité su ko defee moom dala koy wax su la ko waxee nag nga doon koo indil su boobaa mu amoon lu njëriñ waaye bari na ñoo xam ne mën nañoo dégg daaray maam Jaara dem jëndi fukki paquet ci saabu dañu ko indil fekk am nañ ci stop loo xam ne mënuñu koo jeexal ci ñaari at wala nga ñuy indil eau de Javel fekk ñu ci stock boo xam ne mënuñu koo jeexal kon léegi nag boobu lambutoo laaj. lan la daara yi maam jaara soxla su boobaa ndimbal lii day gën a jàpp ni ci noonu kon daal ci tënk bu gën a gàtt mooy résultat wu daara yi maam mooy lii le 5 mai 2000 2005 la ko sëñ Moustapha Bassirou sos tey jii dafa mokkal na ci ay maam jaara alxuraan àgg na ci ñeenti téeméeri maam jaara ña bind kaamil mat nañ téeméeri nit ba pare teg ci nag teg ci nag lu am solo mooy tasaaroo dañ ci réew mi maam jaara ya fa nekkoon di jàng dellu nañ ci seen bopp ku ñenn ñi jël nañ leen fa ñu dëkk ñooy jàngale alquran ñenn yi ay daara yi maam ay daara yi alquran ci réew mi jël nañ leen ñuy jàngale alquran kon yéene ci sëñ Moussa amoon ba wax ne yéene ci sëñ Moussa amoon ba wax ne bu ma sañoon ñu génne fi ay maam jaara yoo xam ne suñu ñëbbee ci seeni bopp liñ jëlee ci daara ji ñu yóbbu ko fa loolu suñu borom defal na ko ko ginnaaw kon daal ci gàttal. booloo bi li ma dese woon ci exposé mooy présenté leen daaray maam Jaara ngeen xam ne daaraa ngoog yoo xam ne Sénégal yi ëllëg liñ bëgg mu saafara ci yu bare bare bare bare bari daara ja mën na ko dindi ndax nag ndey du baax société daf koy soxla te nag ñu la gën ay ay ndey ñoo la gën société ñoo la gën a rafet développement te nag daaray Maam kon pépinière la pour la société de demain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.